sëñ Tuubaa ku ko gës te yàlla ñor la lislaam ñor la bëgg nga koy def ak waggar ak wormaal waaye doo ko wax leneen ku parparloo ñor na wala mu mel noo mënul mel wala ñooñam mel noo mënta mel bu la neexee wax loolu waaye boo ko seetee yàlla kese rek ngay gis ci moom yàlla kese la woote daxa ilallahi jalla fal mujibi lahu ridan wa naajin wa muhtadin ilallah xoola gàmm gii ma lay wax am na gàmm gu ko fekk gabon goo xam ne genn ganaar la yor di wër kum ko jox amu ko am na gàmmu ko ko fekk gabon ngoo xam ne seen saatuloo la yor wute ko bin dem wecciku ko ko li taalif muxaddamatul am ndax moo ne bi muy gàmmu njéeréem mag ñi baree baree baree bari ba soxna góornóor bi ñëwoon di seetaan si daa riir keroog keroog Cheikh Issa yi ñuy togg di ko yàq am na ci yooyu sax amuñu bool yu ko def dañuy def mel ni peron rek sotti njéeréem fees kuréel ba da taxaw di yëkkati muxaddamatul am ndax kuréel bii taxaw di jàng mawaahibu naafiya kuréel bee taxaw di jàng gis bul xulóob ñii di jàng bari seen ji yu muy bàggante jalaal jeeg jamaal ji di ko dër léegi-léegi mu dindi kaala gi ngir di bégale nit ñi jëmmuñ te ñetti kaala la daan tegle lu mu lëndëm lëndëm bu ne kàng muñ day mel ni fu nu lal taal lampe patafor bu kaala gi ci suuf rëccee ba sikkin bi génn danaan laas nga defe ne leeri laari wurus la chaîne yi wurus yu lang suñu musaaka da daan muuru yor yetti kaala yu joor rawan yaa ngi ko daan féete wàllum day joor bu muuraay gën a lam set sikkin ba ne laas dina saf laari wurus moo ko jekk ay faas xeesu ba na pecc foofu di aw ñuul yaram waa ko dafa mel ni jaani ngolool muy bàggante di jël sikki ja gën a saar di leen ko sottil di jël ñam ya di leen sottil mag ñi di yëkkati di jolli ci kaw antal kariimu annal xadiimu yi udiimu fii ka sanaay yaay